Fall kooku sama sama sama. waaw moom la euh, euh, président suñu gox suñu yitte. ay te ñu yegg ci kaw turbine bi. ndax fa ñu jëm a tax dañuy mbëkki. fa ñu jëm de. dañuy mbëkki. Yacine yaa ngi may xool tey sama dara laa kii moom kenn boo sañcee yenn sañce yi. kii moom kenn du ne jotul. Ah, mat na sëkk su may dox sànq ba léegi day damay dëgg tissu bi tissu bee mat. pressing ngay laal. alhamdulilah grand sëriñ yeeg ñëpp am nañ problème. te dama fàtte andi beneen mbaxane bu weng bi sax bu Nigéria bi. bii weer bu xam nga gannaaw la xaw ma moo tax ma ànd xam nga bii weer bu xam nga loolu la. dañuy mbëkki tribune yene dafa dafa mbëkki. Barça wala Barsax xale yi boo leen di yedd fii ba suba dégguñu xam nga la moo tax nee nañ yegg mbëkki yegg baa suux. baa faatu moo leen gën a toog réew mi. ñu leen toog ci réew mi dund gu dee gën donc ñoom bu fi toogee pour ñoom dee nañu hmm. donc dem deewi ci géej bi moo leen gënal des ci réew mi tribune yéene kaay ne nag nangamu gëléem la de kaw la jëm te gouvernement bii lu njiig njaagit ñoom bokk nañ si ñii di njaak bu nekkul ñoom kase ñoom bokk nañ si ñii di njaak ok ah, le gouvernement est autant responsable que les passeurs ndax passeurs yi ñoom seen yoon nekku si dafa am ay promoteurs yoo xam ne tëggu gaal la ñuy def maanaam yoon naa sama xaalis yor naa 4 millions investi dem fekk benn gaal bu nga xam ne moom du foofa moo ko doon jaay gaal gi tëbbatul ndax dafa am ay tuuti yàqu-yàqu ma ne ko jaay ma ko mu jaay ma ko ñu rafistole man ma ne Yacine Thierno boo leen gisee kuy bëgg a dugg ci kuy bëgg a dem mbëkki rek. 500000 hmm. laay 300000 lay laaj yéen bu leen neexee laaj leen 400000 ngeen jël seen 100000 ngeen mbëkku leen man mbëkkiw ma mais yéen a may andil ñii di donc man. rangu gaañu. 4 millions laa dugal ngeen euh, gaal gi wala def 300 wala 400 ki nga xam ne mooy yóbbu gaal gi nag benn capitaine lay doon ku daan mbëkki ku daan ku daan ku daan nappi. miin na géej gi xam na géej gi géej gi doxatul jën amatul ma ñëw ne ko saawaay gaal gi laa bëgg nga yóbbul ma ko doo fay kooku xam ne gisatul jën bu mu napp mun na naa dem kooku itam jël ñaari élément am teg du ñu fay ñoo koy gunge donc ñi tëgg gaal gi yëpp kenn du si dem. Hmm. kenn du si dem. mais ñooy encaissé. mais ñoom ñooy encaissé parce que dañoo investir. li tax nguur gi nag ñu ne am na si part de responsabilité tribune yéen a kaay moo ko wax muy ñi nga xam ne ñoo jël bato yi. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo jël yoonu suuf yi. camions yi ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance à l'étranger. leen dara du. parce que nee nañ toog Sénégal wóoratu ñoom loolu la ñu gis ñoom ndaw ñi. ailleurs beaucoup partent donc pour fuir les conflits ndax yeneen dëkk yi kat. xeex moo fay am xeex guerre bu metti wala guerre civile ñu takk seen i bagage uti ji fu ñu làquti mais réew mi xeexuñu xeexluñu tëgguñu benn xeex xuloo rek waaye ñun ñooy jubboowaat suñu biir ñu ñi di saagante di defante ñoo toogaat gis nga bu ñu saagantee ci suba gi ngoon gi ñoo toog ñooy naan attaaya damay defante xiyaasin ci bëccëg gi nii ci télé bi ñëpp gis ma sa kër laay reeree guddi gi te bu ñu wàccee plateau ñooy ànd dem resto ndékkindoo te nit ñi comprendre nañ loolu te xam nañ jeu film rek lañ man nag fii réewum Sénégal ñooy xeex ci kaw ànd ci suuf te naan suba na ko la dóoral boor bee man ma encaissé côté boobu yow tuqal point boobu rek boo laalee foofu suba man bu ma waxee nii gis xam nga loolu la sénégalais yi bëgg loolu lañ la yooyu de léegi sénégalais yi nekk ci biti di defante ñii farax yaasin ñii farax maam bay xam ñu dañuy jeu fii laay taxaw yaasin di ma kañ fii laay taxaw yaasin di ma kañ bu waxaat lii ma ne ko lii laay wax Mamadou Fofana di débanteex maire bu Sébi Xotaar da nga sa mise au point bi na nga ko denc la prochaine fois. mooy seul maire bu ci bind mise au point. ñaata commune nañ fi wax. loolu moom après ngeen waxaat ci moom. leen grand chef. nee nañ fii ci réewum Sénégal les gens pour aller à la recherche donc d'une vie meilleure ah kay parce que nee nañ toog Sénégal wëratul dund gu gën la moo tax xale yaa ngay tëmb di wuti li bit géej te lu njiig njaag jàppale ne gouvernement bi. ab loxooma nga ca biir tribune yéenekaay moom moo ko wax tribune yéenekaay daal di ñëw ci Air Sénégal bi nga xam ne am na DG bu yees Tidiane Diaye la tudd jël na lenge yi jël na commande yi ngir doxal ñu xool ndax Sénégal dana Air Sénégal dana soppeeku am déet comme yëgaguma ci nag mën a ko ma apprécier tribune yéenekaay daal di dikk ci euh, ki nga xam ne moom mooy premier ministre Ilmane Diorine Ousmane Sonko jëlati na ay dogal dakkal li nga xam ne mooy ay liggéey ci lotissement BOA Hangar des Pèlerins aéroport bu Dakar Bambilor ci titre foncier 11 651 R nee na lépp lu ñu fa doon def nañ ko dakkal waaw ak dal balaa teer ñu xoolaat mbir mi jamono joojee nag Papis Nia euh, fu mu nekk nii décliné na les grandes lignes du euh, patrimoine gala 2024 borom ceebu jël pend mbay tax na ba suñu ceebu jën pend bay bii. wër àdduna patrimoine la. ñun ceeb ceeb jën pendeme dañu koy bàkkoo dañu koy tiitaroo mu rëcc liggéey bu am solo nag moom jaay destination Sénégal moom moo koy yitteel moom Papis Niang lan waaw aar bi lan la wootee euh, patrimoine gala 2024 promotion de la destination euh, Sénégal am na nag ay jeeg ay jigéen yu mu tànn loolu moom am na solo moom gannaaw ceebu jën pendemey kat moo koy uutu lépp luy jaay jaay Sénégal daal la reine de l'or naa la ko tuddee ah, édition bii di ñëw am na nag ñu mu tànn ñu xool ñoo ñoo war ay jigéen yoo xam ne nii Euh, dañuy xool seen bi après kat mooy nekk ambassadrice bi mënoon na la boole nag ci casting Yacine ñun boo ko boolewoon ci casting c'est sûr da koy jël soxna Batoor sax sama doom ji nekk Tëngéej mi ngi ci euh, euh, comédienne bu mag bi moom it ñi ci casting bi si la bokk mais Papis nag mënoon nga cee boole yaa Yacine am da nga foog ne combat boobaa combat bi day day kii Yacine day ñëw rek jël trophée bi <laughs> en tout cas muy def liggéey bu am solo Papis Niang Arbi Management rendez-vous bi le 9 la. des médias mi ngi ci li nga xam ne moom mooy événement boobee. te certainement ñun waa matinal dañuy dem. waaw ku ñu fay séentu di ñu fa gis. ñu jàll ci leneen lu soxal bi la jotaay yi li nga xam ne moom mooy li yéenekaay yi xëy fësal point actu dafa ñëw ci Sonko fu mu nekk dafa mel ni dafay traqué. des dignitaires proches de l'ancien régime ndax nag régime bi wees liggéey nañu ba dem Ousmane Sonko dafa mel ni dafa nekk di tibb seeni tànk la waaja di def tibb tànk wala topp tànk lay def moom moom moom mooy tibb tànk moom day topp tànk waaw mu ngi euh, euh, le nouveau directeur général du DSCOS procède sur euh, instruction du PM à la suspension d'opérations foncières ci site yi nga xam ne moom laa leen doon limal sànq Diomaye et Sonko cherchent-ils à réparer des injustices point d'interrogation la yéen kaay bi daal si euh, euh, dikk les échos dafa ñëw ci xalifa Sall mi nga xam ne ñu ngi doon wax ne dafa mel ni takk na ay bagages am parce que ne bokk ci nguur gu yees gii. Mm. moom nag weddi na tuuma. su les échos daal na ciy dikk nee na Khalifa Sall vers la mise en place d'une large coalition. kon nag tànn na opposition. ah dafa mel ni moom ak Bougane ñoo bokk bëgg-bëgg parce que Bougane lu moo xoon moo di dina dem tourner xool leader yi nekk ci opposition bi ñu xool ñu taxawale une grande coalition léegi moom it dafa mel ni loolooy bëgg-bëggam waaw def tournée xool taxawal benn large coalition li ci kanam raw li gët dana taxaw am déet ñoo ngi xippi suñuy gët di euh, euh, xool nouvelle suspension si le témoin mi ngi. mafia foncière la ñu ko tuddee qui se poursuit le temps mooy yéen a na si dikk nouvelle suspension d' opération foncière ci yenn gox yeex euh, gox goxaan yi onze zones yu nga xam ne ñu ngi féete fii ci Dakar Mbour Saint-Louis la euh, concerné si diiru ka euh, ñetti weer mm-hmm. ngir nag ñu sëgg ci lu ni mel le soleil yéen a daal di dikk ci Falémé à Lagoni daanaka nee nañ bombe écologique et péril euh, sécuritaire en tout cas moo fay xeeñ des rapports scientifiques alerte sur des tensions communautaires latentes. ah bon euh, waaw ah kay. Ah, ay communauté bu ñu fa xeex nag. dafay xeeñ neexul de. noo lool sax war naa mën a ñàkk ci réewum Sénégal te mi ngi bëgg commencé bëgg a bari nag. waaw dëkkandoo jàmm sa gën nañu nañu ko xoolaat rek. l'indépendant yéene kaay dafa ñëw ci sàkkutee fukk euh, Birahim Seck gis ngeen ko refus d'ouverture du conseil supérieur de la magistrature ah. Birahim Seck recadre les magistrats parce que magistrats yi ñun xamuñu bañ tànk la ñuy taxee hmm. bu ñuy waxee ne na président ñuy wax ne na génn hmm. président nee na moom mu ngi leen di déglu di xool euh, ñu euh, jàll ci opération suspendue dans plusieurs zones loolu sàkku teef la gu nga xam ne mu ngi bawoo ci euh, ilimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko benn taalibe moom moo lap ci benn bassin de rétention foofee sa Touba ndox ma nga xam ne moo fa tagga tembe ñu war koo ŋacc ŋaccaguñu ko du effet départ Cheikh de ah doy na waa de est-ce que ngéewul événement boobu <laughs> mu ngi noonu daal taalibe bi daal euh, lap na ca ndox ma euh, la première épreuve diplomatique donc de euh, Diomaye muy aveu de soutien de Kiev aux séparatistes maliens yéenekaay bi daal na ci dikk l'observateur ñëw ci interview bu mag bu nga xam ne def na ko Youssou Ndour l'émigration des jeunes les jeunes donc leaders en Afrique la dette nee na moom Youssou Ndour gëm-gëmam moo di il y a une nouvelle Afrique qui n'acceptera plus le dictat de qui que ce soit loolu moom moom la Youssou Ndour wax. loolu moom la waaw c'est sûr. Diomaye le point de la pression ndax fu mu nekk nii président Bassirou Diomaye dafa enn boolu jàmbat lu fees dell. Hmm. président Diomaye dafa enn boolu jàmbat lu fees dell. boo sëggee ci bool bi la nga cay gës a gis société civile baa ngay yëngal. Hmm. barki Dembo Ndiaye la am ñu woote seen point de presse di wax ne yaa ko diggee woon. yaa ko woon te ba fii France daal di xëddeen dige bor la ñàkk koo def wor la te ñoo ngi di def ay audience ba sonn faale wooñu benn partie société civile bi gis nañ ko accident yi mu ngi ci boolu jàmbat bi. waaw. waaw jox ñu xibaar bi ah, benn accident bu am foofu fële euh, ca Louga Louga impliquant même benn war gaynde ak ay moto Jakarta démb ci guddi la daal di am mhm. xam naa ni si kanam rek du yàgg léegi bu soobee yàlla dina am peut-être en direct suñu correspondant waaw bi nekk fële ca Louga Galaye Sylla insha allah Galaye Sylla bu yeboo nga waajal ci kanam tuuti nañ la woo boo sër yëree li nga xam ne mooy boolu jàmbat la immigration clandestine baa ngi ca biir opposition beex pression ba ñuy def entreprise yi nekk ci ay jafe-jafe chômage bi nga xam ne mu ngay gën di màgg ci euh, euh, ndaw ñi yéene kaay bi daal dina ciy dikk ne lii nag moo tere ne rew euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye critique yéene kaay daal di dikk ci avenir u parti démocratique sénégalais Wade fils s'aborde donc l'héritage libéral mi ngi démb rek euh, euh, euh, Thierno def na ci ak jàngat jëm ci parti démocratique sénégalais. ak ki nga xam ne moom mooy Karim Meïssa Wade na mu war a taxawee. l'évidence yéen kaay les réalisations de Maguette seen bénéfique donc aux en tout cas foofu la génn ah. Maguette Sène de day liggéey tuuti ci boole wax. te boole ci wax. waaye yow ñaata at nga fi def rek commencé mise au point <laughs> nee nañ soo moytuwul nag nit yi Macky Sall yii dina si am ñoo xam ne dafa dégg naa nag rëbës ñu ngi koy defaraat. defaraat jekk-jekkal yenn kaso yi pentuuraat xoolaat ko xam naa nag dafa am ñu bees ñu war a ñëw yeneen ñu ko kenn fait des audits transmission de rapport au parquet rénovation de prison gis nga du samay kàddu l'évidence ko wax ñu ngi defaraat prison yi. ma nga ca kaw tab. ban la ñi fi nekkoon maa la wax li de. ces hommes de turam moo njëkk ca kaw table ba. <laughs> ñu ngay waajal de yàlla baax na. dossier <laughs> lu leer laa la dossier am kay dinaa la dee bi après. après nga jot dee ñu ko. huit heures jot na kay. waaye même direct news lii nga xam ne mooy dakkalum chantier yi nga xam ne moo am te euh, sàkkutee pour que Elimane di jëwriñ son Sonko nee nañ day yokk limu chômage bi am na ñoo xam ne ay meneebar lañu am na ñoo xam ne entrepreneur lañu ñoo nekkoon ci chantier yooyu dakkal nañu chantier bi dañuy toog seen kër di xool xam xamuñu fu ñu jëlee dépense. ñëw yokk ci limu ñuy frustré fekk ci marchand ambulant yi. mi ngi ni yéenekaay bi dikk na ci les entrepreneurs artisans et euh, tous ceux qui euh, tiraient donc leurs ressources financières de ces chantiers ne dorment plus du sommeil du juste ils se posent moult questions sur leur avenir proche. dëgg la maçon yeeg ñoom seen. ñëpp kenn ku nekk si nga daan dànk sa wërsëg. c'est vrai. ñoom it si gaal gi lañ jëm. seen filaawo yi tamit ni ñu ko dogo dogatee ndekete waa mairie ba yëguñu. où sont passées les 2000 parcelles de de géejawaay yi waaw yow kon gisu leen 2000 parcelles yu géejawaay. ah eh, am na parcelles yoo xam ne de moom. kenn xamul fu mu jaar. am na yenn lotissement yoo xam ne moom dañ ko war a arrêté. nee nañ la bande des Pilaw échappe à bokk na ci bi nga xam ne ndem si yàlla béy di seen nañ ko tuddee lotissement boobu dañ ko war a arrêté parce que dara jaaru ci yoon. deux minutes pour l' essentiel nee na Ahmed Aïdara it mu ngi ci ay jafe-jafe guddi yu bët setagul avec un budget euh, euh, euh, rabourgri donc de un milliard pour six cent millions de salaires. un milliard six cent millions yi mooy salaire. Ahmed Aïdara dans les difficultés yéen a kaay bee wax le poteau donc des impôtiers est une catastrophe ñu dem ci Odia. Eh, tey nekk fi fii. ah boks war a génn chaque jour. ah Badou loolu nga bëgg mi génn chaque jour. Ah, yàlla baax na 63 marchands ambulants ont lan. Barça ou Barsax. le peuple quotidien nee nañ 83 marchands ambulants dee nañu ci diiru ñaari weer yi géej gi. waaw na daal. jël nañ gaal gi dem nañ mbëkki Odia fu mu génne moom coowal télé yi. Escaf. waaw E-Media ak coow. Euh, TDS ak na mu roccee waa kii. Excaf. Euh, waaw da leen da leen rocce. mu ngoog euh, coowal télé yi daal ñoo nekk nii nee nañ nag boo xeful dina am ñeneen ñu nga xam ne ci coow li nañ ci bokk li ci gënam raw li gën. coowal yi waaw